الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ixwatal imaan asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokku jullit yi ginnaaw bu ñu dooree suñu kàddu ci turu borom bi subhaanahu wa taala di muslu di làqu ci moom mu muccal ñu ci saytaan mi nga xam ni mooy yàqkatu jëf yi ñu ngi koy sant sant goo xam ni mun nañ ko door wante xamuñu fan lay yem ndax xéewal yim ñu defal te buñ ko doon lim ñu ko jeexal jàpp rek ne bi ci gën a rëy mooy def gim ñu def ñu nekk ay jullit kon ñi ngi sant borom bi subhanahu wa taala def gim ñu def ñu nekk ay nit wàcce gim ñu wàccee fii ci kaw suuf def gim ñu def ñu nekk ay jullit julli sëlmal ci suñu sang bi sayiduna muhammad salawatullahi alayhi wa salaamuhu moom mi nga xam ni lu njig njaagate moom mooy njaag ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dollee dotti xéewali ci kawam ñaanalaale gaa ñu baax ñi nga xam ni ñoom la àndaloon di ay góor ak ay jigéen ay mag ak ay ndaw ñoom it lu nekk ñu defoon ko ci diine defoon nañ ci seen alal defoon nañ ci seen temps defoon nañ ci seen doole waaye defoon nañ ci li gën a cher ci ñoom tamuy seen bakkan kon saxaabiyaat yooyu ak saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak sang bi ñu ngi leen di ñaanal ñoom tamit borom bi dotti xéewali ci seen kaw ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu islaam jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na ko yàlla wàccee ci jullit ñépp nag ak fu ñu mën a nekk moo xam yéen ñi ñu xam ñu jàkkaarloo ak ñi ñu xam te gisuñu leen ak ñi nga xam ni ci ruux lañu xamante mu mel ni xëy na ñi ngi jéggalu ñemewuñoo toog di tudd benn tur suñu mbokk yi fi jiitu Alpha Camara El Hadj jottali nañ ñu suñu nuyoo ci képp koo xam ni teew nga fi ak ku fi teewul yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di wax beneen yoon masuuliya bi nga xam ni dangeen koo teg ci suñu mbagg teg ko ci suñu loos mu diis lool ñuy ñaan borom bi subhanahu wa mu yenn lañu ko ndax mu oyof dama sopp diw ngir diine defe naa mooy diw mii kaay baax Zeyna Fall am na loo xam ni sañatoo ko man pour man mbir mi loolu rek la lu mën a am rek ñi ngi sant borom bi subhanahu wa taala delloo leen njukkal gi ci yëg gi safoo bi faale bi jotaay bi yàlla ñu toogee nii ëllëg yowmal qiyaama toogee ko ci biir aljanna di ko fàttaliku yàlla mun na ko yàlla yàlla def ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñépp waxtaan wi nga xam ni nag moom lañuy ñuy waxtaanee lu doy waar la lu doy waar la nee naa maam faatu danga ko waroon a jox keneen mu traité ko ndax ñimewuma ko moo tax ñimewuma ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ni ku bëgg a waaru rek dee doy na la waar ku bëgg a waaru dee doy na la waar kon waxtaanee dee ak li nekk ci ginnaaw de waar gënu koo rëy moo tax dañuy lott lool nag sax ñun pour traiter ko dañ ciy lott trop waaye subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala lépp loo xam ni ñi ngi ko nar a wax ci ay fàttaliku lu lu yàlla na jiitu suñu xol lu neex yal nañ ko bokk ak yeen ëlëk yowmal qiyaama bu ñuy waxtaanee al mawtu wa ma ba'dahu ak li nekk ci ginnawam tong yi ni rek lay démé moy li ñuy lay nak suñu waxtaan muy haqiqatul mawt dee ci bopam mom moy lan benen tomb bi malaka mi nga xamni ni jël ruh yi lan motax ñu tànn ko muy jël ruh yi benen tomb bi mooy sakuraatul mawt dinañ wax suñu kem kàntan ci sukuraat naka lañu ko sangi du sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak naka lay ñëwee ci nit ginnaaw loolu dinañ wax alxabr maanaam xayaatul xabr dundul bar dundu barzaq muy nag fi nga xam ni mooy masiru naa fi nga xam ne ñun ñëpp fa la ñuy mujj mooy jagat-jagatee rek jàppoo rek gas doomu xóot rek suul rek wan la ginnaaw bi ciy mujj muy ëllëg yowmal xiyaam li fay xew ëllëg yowmal xiyaam li fay xew ñu tëj li nga xam ni mooy suñu waxtaan suñuy waxtaanee dee xam ngeen ni dee moom nit ku nekk day xam ni yëg ni dee moom laa maxaala la kenn mënu ci mucc dee kenn mënu cee mucc ñun ñépp xam nañu aaya bi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala jàngal nañu ko kullu nafsin zaiqatul maut bakkan bu mus dund dina mus loolu ñuy tuddee dee bakkan bu ñam dundu yëg sa ruux ci sa yaram bi sa ngi ñëw sa xarit boobu la gën a jege dina tàqalikoo yow muy sa ruux ruux dafa yàgg ak doomu aadama ñi ci gën a mag nag ñi ci gën a tuuti ñi ci gën a tedd ñi nga xam ne ñoo ci gën a dañ leen jàpp ñu torox ñi ci am ak ñi ci ñàkk ñi am doole ñi néew doole ñépp rekk dee gi ñuy waxtaane dina leen dikkal amul kuy dund lu dul ne bés a gi ñëw boo xam ni dinga nga dee mooy sa jëmm ak sa ruux dinañ tàqalikoo bu nekk dellu ci cosaanam ndax xam ngeen nii borom bi subhanahu wa taala dafa joxoñ suñu sang bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka mayitun wa innahum mayituun ne ko yow sang bi da ngay faatu maanaam lu ñuy tuddee de danga koy def ñoom ñi ma la yónni ñuy ay mbindeef tamit dañu dee kon dem yonent bee dem sallallahu alayhi wa sallam kon defe naa ne keneen ku dem daal xëy na dañ ko dul miis waaye du rëy comme ni nga xam ni sang bi noonu la fi jógee salallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni dee moomu mooy li nga xam ni mooy tàqale diggante ak jabar di tàqale diggante yaay ak doom di tàqale diggante mag ak rak waaye mbooloo yi lu ñuy bari bari dee moo leen di tàqale motax ndaysan ben benn borom waykat teug ay abyaat muné ne min at-tuqa fa innaka la tadri ida janna laylun hal taishu ila al-fajr fa kam min fatan amsa wa asbaha dahikan akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min صغار yurtaja qul umrihim وقد, أد وقد دخلت أجسامهم ظلمة القبر قبري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم مات عاش حينا من الدهر ويكد بنينا يو دوم آدم للي خار دفع بريت ريس من يوبل بوم من أدبدل برغل يالا ننقو تكت أدبرغل يالا mu ne ndax yow xamuloo bu bër seet jotoo xamuloo ndax bës ndax jant dina la sowe xamoo ndax soo yeewoo dinga fanaan ndax soo xëyee dinga yendu mu ne ndax bëri na ay jeunes yuy yaakaar seen gudd fan fekk ràbb nañ seen càngaay ba teg ko marché teg ko ci marché bi di ko jaay mu ne ñaata tey ci ay ndaw ñu toll seen digg ndaw ñëpp topp leen ñu yaakaar ni ñoom rek la fekk mbër mii daane laata mi ngi taxaw ci buntu këram di ko xaar bisam jot ba mu jël ko yóbbu ko daaneel ko mu ne waaye ñaata ay seet lañu préparé ñu dem nag ba war a sëy fekk ndeysaan duñ génn seen kër ndey ak seen kër baay ndax keroog ca laylatul xadri lañ dogal seen génnuk àdduna mu ne ñaata ay nit ñu wér péng ñoom ñoo jékki-jékki rek dee waaye ñaata ñu feebar ñoom ñoo dund lu yàgg soog a dee pour wan la ne la bakkan li nga xam ni mooy dee jotewul sax ak feebar dara nit ku nekk lii ñuy tuddee dee dina la dikkal dee moomu nag xam ngeen nii dafa am benn malaata boo xam ni moom moo yore wàllu dee gi maanaam moom mooy jël ruux yi benn waaye bu ñuy wax azahri bintu wax bin ibnu muniba moom moo ñuy nettali li ñuy bëgg a wax mu ne mi ngi ko jëlee ci ibnu abbas ibnu abbas jële ko ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla dafa woo malaaka yépp ñu ñëw mu tànn ay malaaka jibril la njëkk a woo ko jibril damaa bëgg nga dem tibbal ma ci suuf si indil ma nee na jibril na ko ay yàlla maa ngi muslu ci nga may sant may bañ waaye ragal naa tibb benn pepp wadd te waruma koo waddal wala ma bàyyi fa loo xam ne war ma ko faa bàyyi tinu yàlla dimbali ma rek ndax duma ko mën yàlla daal di ko kon bàyyil mu daal di yónni Mikaayil ne ko Mikaayil demal dibbal ma ci suuf si nekk àdduna indil ma Mikaayil tontu ko li nga xam ni moom la ko Jibril tontu ndeysaan mu daal di xool nag ki nga xam ni moom mooy Azraïl moom it mu commencé wax yàlla na ko déedéet yow demal nga tibb ko ñëw indil ma mu gaaw dem rek tibb ñëw indi jox borom bi subhanahu wa yàlla na ko waa lan moo tax yërëmoo li ma la yónni nga indil ma ko comme ni ko sa gaañ yërëmee mu ne ko ragal nga mer ragal sa sànje moo tax mu ne ko kon li ma soxla yaa ma koy defal kon nit ñi nekk ci kaw suuf di fa dund seen ay ruux yaa ma koy indil képp kuy faatu Azraïl mii moom mooy qaabidul arwaax moom mooy wàcc ñëw ànd ak délégation ñëw jël loolu nga xam ni yéen ñaar dangeen a yàgg lool te xam nga ni nit ki nga yàggal sax muy tukki ngay toog moom day am loo yëg waxuma laa ruu mi nga xam ni dafa yàgg ci yow kon buñ koy génnee il faut nga am loo yëg ndeysaan bi mu ko waxee loolu mu daal di jooy ma malakul mawti jooy yàlla na ko lan ngay jooy mu ne ko xanaa ñooñu ma nar a jëli ay yonent ngi ci ay nit ñu baax a ngi ci ñëpp a ngi ci am na ci tamit ñoo xam ne ay kàccoor lañuy doon dama ragal yàlla su may dem di jël seen ruux ñu gis ma xam ma mere ma ba sax dinañ ma saaga yàlla na ko déedéet mbir mi yow doo ci dara yow dañ lay wax rek ngay def dinaa dogal ay sabab yoo xam ni déegi bu ñëwee yow malakul mawti kenn du la ci tudd ndogalu yàlla la heure moo jot mu dem mu ne moo tax mu indi ay feebar ay tolof tolof ak yi nga xam ni léeg-léeg mu dal nit ba ñu laajte ko ñu ne diw dey nangam moo ko daloon moo tax mu jóge fi nee na sabab yooyu lay def ba tax malakul mawt moom du ci doon lenn kenn du ko ci wax dara ndax moom dañ ko yónni rek mu ñoo def li nga xam ne moom lañ ko sant kon pour won leen rek ne leen dee lu doy waar la yàlla xam na ni mënuma koo traité yàlla xam na ni mënumaa traité thème bii ñu ma sant ndax dama ko ñëwewul moo tax li tax ñemewuma ko mooy la waykat ba wax falaw annana ida mitna turikna la kaana al mawtu raaxatan li kulli xay walakin ida mitna buisna wa nasalu baadahu an kulli shay bu fekkoon ni boo deewee day mel ni ba nga juddoogul ku nekk at ma nga juddoogul amuloo ci benn yëg-yëg mu ne kon dee day nekk noflaay waaye soo dee dañ lay dekki lu nekk ñu laaj la laaj boobu nag laa ñemewul ndax ku la audité gis ay sikk ci sa sa biir ci lim la audité ku saytu say mbir rek gis ci loo xam ne ay gàkk-gàkk la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ñu nag dee googu naka lay dikkee ci doomu aadama maanaam xaqiqatul mawt dee dëggantaan moom mooy lan borom bi moo ni naa nahnu qadarna baynakumul mawta wa ma nahnu bi masbuqin dee ñun ñoo ko teg ci seen kaw ñun yàlla ñun ñi nga xam ne ñoo sañ lépp ñun ñoo dogal nit di dund ma ñëpp yaakaar ko mu jële ko fi yóbbu ko ñii di xaru ñii sonn am sax ñoo xam ne dañuy torox man maay jël ki nga xam ne day wasin nit ñëpp toog di ko xaar ma daan ni ko coppit yóbbu ko bàyyi fa doom ja wala ma jël doom ja yóbbu moom ma bàyyi ko fa may fekk kilifa ci biir këram muy dagg bu mu yi mooy joxe dépense kenn yëgul benn coono mu xëy benn bés daal di koy jël yóbbu ko waaye maa fekk ñaar ñu taqaloo ñaar ñoo xam ne dañoo kolan ma teqale leen dee moom moo koy def moo tax yonte bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bëri leen lu ngeen di fàttaliku dee ndax moom mooy dog bànneex yi de ku ko dul fàttaliku sa imaan du mën a dëgër danga koy fàttaliku ba def sax ni mu ko waxee saa yoo xëyee bul xaar guddi waaye su guddi jotee bul yaakaar ne ba set dina la sete kon dee googu ki nekk daf lay dikkal ndax nag alaylu mahma qaala laa budda min tuluwaayil fajri waaye nag wal umru mahma qaala laa budda min duxulil xabri xam ngeen ni guddi lu mu yàgg yàgg ba set dina jot waaye dund tamit lu mu yàgg yàgg bés a ngi ñëw nga jóge ci dund gii di àdduna dem dund beneen dund muy xayaatul barzaqiya ak dund gi nga xam ne mu ngi xaar muy yowmal qiyaama li métti nag te ci dee ba yonent bi sallallahu alayhi wa ne bu ko kenn ñaan yonent bi nee nag nit waloo toll ci jafe-jafe foo toll danga naan man suma dund gi dee moo ko gën ndax danger yi nga xam ne moom moo nekk ci dee xam nga dee bu fekkoon nitam ni ngay ñëw bi ngay ñëw ci àdduna ni nga ñëwee noonu rek sa yaay moo gën a sonn yow sonn loo booy dem noonu lay demee kon dafay yomb waaye li métti ci dee mooy sukuraat sakaraatul mawt sukuraat moomu nga xam ni suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ca tollee daa waxoon suñu yaay Aïcha mu utal ko benn bool mu ciy dugal loxo yi di ko génne naan ina lil mawti la sakaraat naan dee daal ndekete am na ay méttit dee dafa am ay méttit dafa am ay douleur yu mu àndal bu yemoon ci douleur yooyu sax ñun jullit suñu xel day dal lool waaye daf ko paase li tax mu paase ko mooy ibnu abbas moo solo xadis bi nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki buy génn àdduna li tax mu doy waar mooy seytaane day ñëw mu ne ñaari seytaane ñoo koy dikkal kii day jël kanamu baayam kii jël kanamu yaayam kii nekk côté ndeyjooram kii nekk côté càmmooñam baay ji naan ko yow sama doom man maa dencoon sa yaay man maa la doon dundal maa doon sonn deewal ci diiney nasaraan yaay ji gestu na ko déedéet yow sama doom bul dee ci diiney nasaraan de ñëwal dee ci diiney yahut man maa la ëmb maa la imbi maa la nàmpal maa la tete kon ñëwal ci man ci diine ji ma lay woo nee na nit buy dee seytaane il faut que daf koy dikkal beneen riwaaye dañuy wax ne seytaane day taxaw yore ndox ndax kuy dee day mar ndax nee naa la ruu gi nga xam ni moo nekk ci sa yaram ñu koy commencé xëcc bi ci wewu tànk mu jëm ba ci cati karaw yi neexul a dindi waaye surtout nag boo doon def safaan day tasaaroo sa yaram dinañ ko leeral ci kanam mu ne nit ki noonu lay nekkee ku nekk xam na ni ndey ak doom dañoo jege te ku nekk xam na ni doom ak ay waajuram am na lu leen liya loolu foofu lan moo la ci mën a muccal ñu ne moo tax borom bi subhanahu wa taala ne rabbana la tuzi qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahab ñu ne aaya bii bokk na ci sababu nuzul yi mooy li tax nit buy faatu seytaane ni muy ñëwee di ko fakastal boo ko dee wax loo laa ilaha illallah bu ko tàmmul woon du ko mën a wax mu taxaw yore ndox mu sedd naan ko kaay naan te daf koy soxla mu ne moo tax aaya bii wàcc muy borom bi subhanahu wa taala bi muy wax naan jaam ñi nañuy wax naan yow suñu borom yàlla boo rekki suñu ngëm bu ñu tolloo ci stade boobu bëri na ko fa tollu deewaale ak li nga xam ne mooy rekkeeku ngëm yàlla ci yàlla mu cël lu doy waar la kuy dund def examen amuloo ngay xaru dangay ngay caaxaan examen bu réy bi mooy gan googu ñuy tuddee malakul mawt nga xam ni saa yu xëyee bunt bu nekk dina fa jaar juróom-ñaar fukki yoon di xool kan la fa war a yóbbu mu yóbbu ko kooku nga xam ni ku nekk mi ngi koy xaar ku nekk dina la yóbbu saa yu xëyee nag bunt bu ne dina fa taxaw di xool kan la war a yóbbu li ci doy waar bu doon day ñëw rek yóbbu la mu tane waaye seytaane mi nga xam ni mooy yàqkatu jëf yi ñim ciy laxasoo ba mun la yàqal loolu mooy problème bi waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dee googu seytaane yooyu bu fekkee ki ki mu dikkal daa nekkoon ci santaane yi bàyyi tere yi mu ne jibril alayhi salaam day ñëw dàq ñaari seytaane yooyu day ñëw dàq leen ñëw ci kanamu kii faatu di raay kanam gi ndànk léeg-léeg sax moo tax nga gis kuy faatu di muuñ ndax jëmmi jibril mu muy gis ak li nga xam ne mooy leer gi nga xam ne moom moo nekk ci moom mu ne moo tax ndeysaan Aysa na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa kon mooy wahab lanaa min ladunka rahma ñu ne ma boobu li muy firi foofu mooy jibril lay nit ki di ñaan muslu yàlla yàlla yàlla nag ma def bu may faatu jibril ñëw dàqal ma samay saytaane ba nga xam ni duñ ma dara waaye nag kim dul mënal dara day mooy ki ko tëwoon fii ci àdduna seytaane boo ko tëwul bu dee fu mu wootee yaa fay njëkk nekk soldaaram booy faatu tamit ci ay loxoom rek ngay mujj yàlla nañ ci yàlla muccal kon gis ga looloo tax déegi doy waar muy sukkuraat bi buñ la doon bàyyi yow kese sax nga am chance waaye seytaane mu ci participer loolu mooy problème bi sukuraat nag daal ni jeef nag daal di egsi yàlla ne wa jaat sakratul mawti bil xaq zalika ma kunta minhu taxiid ne doomu aadama bi nag su ma ko bàyyee mu nekk ci ay activité di dugg ak a génn lu ne mu dugg ca mu ne bis nag ñëw ma tëral ko ci lal boo xam ni docteur dina ko tiim du ko mënal dara ci ko gënoon bëgg dina ko jege du ko mënal dara waa àdduna yépp buñ taxawoon ñëw ci moom pour jël intervention ci diggante moom ak sukuraat duñ ko mënal dara moo tax benn xakim ne ki jël boppam jébbal ko nit na ko jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira su la mënalul booy faatu mu ñëw na malakal mawti puusal fële ruwam test ko ci man jël ko nee na jar naa seetaat nee na ki ngay ci moom na ko jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira ba gisatoo dara nee na balaa mu doon mën a assuré ngay dee malakul mawti na jëf ak ay gaayam mu ñëw nag taxaw ne malakul mawti kii sama taalibe la woon bu mu yëg dara ci sukuraat bi nee ku la ko mënalul bu la santee lu baax nekk ci ak moom bu la wanee na den lu dul mbaax bàyyi ko ko toppi mbaax sukuraat moomu ndeysaan jaam la ci jaamu yàlla yi moom tam day dox mission ibnu Mas'ud yàlla na ko yàlla gërëm daf ñu nettali xadis boo xam ne day dalal xelu képp koo xam ne jullit nga mu ne nit ki bu demee bay génn àdduna fekk mi ngi nekkoon nag ci ay activité am comme ni muy amee rek ne la ñu tàggale di nit nga jaaxle diw moo génn àdduna ah kay ndeysaan moo tax mbër yi nañ sedd yàlla ci li ñuy def mbër mu mag mi mooy malakul mawti kooku mooy mbër mu mag mi nga xam ni daan na ponkal yu baree bari ana buur yi ana leen ci ay président ana ay nit ñu siiwoon ñëpp xam leen mbër moomu moo leen daan lu doy waar la waaye Ibnu Mas'ud nee na jullit bu doon def lu baax mu ne buy faatu mu ne lu tax ay mbokkam dañ koy tiim ndeysaan gis ko ni muy jalt jalte ñuy tiit jaaxle mu a jalt jalte boobu ay yiw la mu ne ndax jibril mooy njëkk a ñëw ne ko sa borom mi ngi lay nuyu yow diw yàlla nee na mi ngi lay nuyu egseegoo ruu gi ñëwagul waaye nee na mi ngi lay nuyu waa ku yàlla nuyu faale di nga nuyu keneenam moo tax dañ lay wax ne diggante boobu nag jibril bu duggee ba génn rek dootoo xàmme keneen ndax yaa ngi dund beneen dund sa jëmm mi ngi fii naam waaye dégg nga leneen commencé ngaa gis leneen moo tax jëmb ji day commencé soppeeku làmmiñ yi commencé di damm cër yi di commencé bañ ginnaaw bi jibril jibril duggee moom bëggeen na bu jibril génnee nag malakul mawti moom dafa am ay gaa yu muy àndal gaa ñi muy àndal ñooy njëkk a ñëw dugg si kii njëkk ñëw day ñëw nuyu ko asalaamaaleykum bu fekkee kuy def lu baax lañ wax de yow diw doomu diw ak diw yàlla yónni ne ma fu ne xool naa waaye sa tànk yi dootul dox li nga waroon a dox jeex na dootoo jóg bu ko defee ndeysaan tànk yi commencé yëg beneen yëgin boo xam ne mosu ko woon a yëg day génn rek am ku mu croisanteel beneen malaaka mu ñëw ne ko yow diw doomu diw dem naa fu ne xool waaye lekk gi nga daan lekk maanaam sa wërsëg ci lekk jeex na buñ joxee meew day tuuru génnaat leneen lu dëgër moom kenn waxaale wu ko butit yi nga xam ne ñoo doon liggéey retraité nañ jeex na dara dootul dugg ci biir gémmiñ gi bu génnee daa tase keneen mu ñëw yow diw doomu diw noyyi gi nga fi amoon oxygène bi nga doon noyyi jeex na noyyi jeex na dootoo noyyi ñu ne foofu lañuy ñuy commencé ñoom ñu ne bu ñuy xëcc li nga xam ne mooy sa ruux fekk yaa ngi doon def lu baax jibril day del situ tok ci sa bop di la ray di ko ray bu ko defé sukurat bi du metti donte nak borom bi neena kala kalla balaghatil qulqum kala iza balaghatil qulqum wa antum hina isin hina izin tanzurun, wa tubsirun wa nahnu aqrabu ilaykum walakin la tubsirun neena nit dal buñ ko né du dara mu mer buñ ko né do fokk yaay kan mu xolat bopam te fekk sa commencement ku la laal raxasu sa mujjantal tamit ku la laal raxasu nee na bu ñu xëccee ruu ba mu egsi ci bollax ci baat foofu dina doy waa torop ndax yëg-yëgu nit malaaka yi bu ñu xëccee ba ci ndigg dañuy toog nag noppalu ruu dafa diis malakal mawti nag Azraïl nag daal di nag egsi nag ñëw nag commencé ci ndigg li di xëcc nag jëm ca bopp ba foofoo métti ku nekk dina ci jaar kan moo mën a assuré na du ci jaar Ken, ki lak ki lak ba xam ki judd rek daal di dem ku mus dund di nga mus dee malakal mawti moomu dina la dikkal di gisak ko gis ak sa bët ñi nga nekkal duñ ko gis kon jar gan gi jar naa waajal de ku nekk di nga dund mën nga dund ba dee am na ñoo xam ne mën nañu dund ba dee te président du leen gane si mais malakul mawti mii kuy dund rek xaaral ne dina la gane si kañ fan kañ la adri yàlla rek moo ko xam mom non lay def ak ki nga xamni mo doon def lu bax neena mo tax ndaysan sahaba bi bi ñuy sahaba bi nga xamni moy bara ibnu azib mu ne ndaysan mo tax borom bi subhanahu wa taala ne tahiyatuhum yawma yulqawna ndaysan lan la salam neena nit kuy def lu bax mu ne ta yàlla ne ëlëk yowmal qiyam buñ dajé ak ñoom yàlla boy daje ak mom fekk yaang doon def lu bax dalay yónnee nuyoo dalay yónnee jàmm sukuraat bi lu muy métti métti day oyof ndax nag sukuraat suñu yonent bi sa alayhi wa sallam moo ñu ko diminuer moo ko wàññi ba mu xaw a oyof nii ci ñun lu métti la nee na borom bi nag mi ngi tagg gaañooñu nga xam ni ëllëg bu ñuy daje ak borom bi subhanahu wa taala du ñu jaaxle ndax borom bi nuyu na leen sargal na leen waaye gis nañ li nga xam ni moom mooy yiw ibnu maaja ak abi hurayra ñoo soloo xadis bi ñu ne doomu aadama bi su faatoo noonu fekk jullit la mu ne buy faatu noonu pour wan la rek ne la yàlla lim dencal jullit lu rëy la lu neex la jibril day ñëw assisté di la raayal sa bopp mu ne malakal mawti nag day moom it toog naan la yow bakkan bu teey bi nekkoon ci jëmm ji ñëwal sa borom mi ngi kontaan nga ñëw ci moom tey dañ lay ubbil buntu asamaan yi tey ngay kontaan tey ngay yëg ne àdduna nekkul woon dara nee na ruugi buñ ko xëccee noonu di dem ak moom nee na malaaka yi asamaan bu ñu toll rek malaaka yëpp dañuy génn waaw malakul mawti am nga gande waa xet gu neex gii nag bu ko defee mu ne mooy kii de mooy diw doomu diw dëkk palaas sàngam kii moom moo ñëw tey wuy si wala ñibbisi fi nga xam ne moom mooy këram bu ko defee ñu ñaanal ko ne ko dalal ak jàmm egsil ak jàmm demal ci sa njéggalu boroom moom na yàlla di wax naan yaa ayatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati bakkan bu teey bi nekkoon ci jëmm ji daan def lu baax buy faatu nit ñi yow ko ku nekk di ko mettitlu mu ne yàlla moom fekk yoon na jibril na ko yow bakkan bu teey bi nekkoon ci jëmm ji ñëwal tey am na ñu la jiitu àjjana ña ngi la fay xaar ñëwal tey dugg àjjana bokk ci gaañu baax ñi yal nañu yàlla boole ci ñooñu waaye nag ma al asaf ku nekkoon ci ay caaxaan def ni àdduna moom kër la doo fi jóge buñ la nee jaamu yàlla nga ni man ndaw laa dama koy dox buñ nee jaamu yàlla nga ni ah su ma ci tolloo wa kam min fatan yurjaatu la umrihim waxat nujibat atfaanuhum wahum laa yadri ñaata ay jeunes lañu ràbb seen ay càngaay teg ko ci marché ba di ko jaay du yàgg ñu ne boppam moo doon métti dafa accidenté biiram moo doon métti noonu rek il faut que mu am sabab nga yaakaar ni yow la yaa ci toll lu ne nga dugg ci lu ne nga génn ci ndeysaan fekk nag li olof naan sàcc bi du raw jot a yàq nelaw borom bi am na bés bu mu lay xaare àdduna neex na waaye allaaxira ci ki doon def lu baax moo ko dàq moo tax dañ lay wax ni misaalu doomu aadama bi doon def lu baax bu faato day melni lire bu joge ci biiru yaayam lire bu juddo rek day joy ñu ne day joy ndax day yaakaar ni fi mu jóge moo dàq fu mu jëm ta xam ngeen ni ku juddo dootoo bëgg a sa biiru yaay ki doon def lu baax non lay mel bu ko yalla wanee li nga xamne moy xéewal yi waye ki nekkon ci ay tiaxaan ki nekkon ci aduna ni mom la boy dox sax ni suuf ci mom mu nga ko bënn ni war nga gëna mëna reey reey lu ba reey gëna montagne yaakaar ni yow rek la koo jëflanteel mu jéppi la sa digganteeg sa boroom rattaxul ay waay booy génn àdduna gis bi ngay gis malakul mawti rek day doy mbugal si maam ibrahima alayhi salaam daf ni woon yàlla won ma ni ngay jëlee ruu kuy def lu baax ak ruu kuy jël kuy def lu bon bi ko ko yàlla wonee ba mu ximmi daf ni malakal mawti suura bi muy indaale ci ki nga xamni ni doon def lu bon neena lu rek daf koy doy mbugal ne nit ki da koy xol tiit ru gi tass ci bir yaramam mu nek ko xamni dina daj metti bo xamni bam juddo batay juddoo ba mus koo daj mu nek lo xamni tamit lu yeme la yan nañ yalla musal ci bobu ñu ne koku na nga xamni mo doon def lu bon mom tam Manam ki nekkon ci aduna rek yaakar ni du fi joge malaaka yi ñu sax ndeysaan ñëw pour bëgg jël li nga xam ne mooy ruwam ñu ci am cawarte ndax ruu gi daleen di sonal ndax xasaw ndax xeeñ ndax bàkkaar yi nga xam ne moom moo ci fees mu ne bu ñëwee ndeysaan buñ ñëwee dañuy ñëw a ñëw ndeysaan ba egsi ci moom ñu continuer fi nga xam ni foofu lañu tolloon ci bakkan yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jangal nañu ki nga xam ni dafa tënkoon bakkanam ba moomal ko boppam boyalu ko buy génn àdduna ni ko malaaka yi di teeroo nga xam ni asamaan yi asamaan yi juróom ñaar lañ asamaan bu ñu ak ruugi rek malaaka yi génn tatagal ko xeeñtu ruugoogu nga xam ni day xeeñ jaamu yàlla ba korok ñu koy teg fa nga xam ni mooy cosaanam muy fa nga xam ni mooy aljanna ñu doon wax ki nga xam ni nag moom moo nekkoon ci safaan ki defoon àdduna muy kër te xam ni àdduna kër gu mën a naxe la wa ma xayaatu dunya illa mataaul xuruur àdduna kër la gu man a mbasaate kër la gu mën a jaye kër la gu mën a dettel nit ndax dafay ware loolu lañu yàlla jàngal mu ne kooku ndeysaan wax nañ leen maam aadama alayhi salaam ni mu nettalee bi ko yàlla wanee ni ñu jëlee ruuku gëm yàlla ak ki nga xam ni dafa nekkoon ci safaan daf ni daal ki nekkoon ci safaan moom waxuñu sax nag mu yem mu dem yoomal xiyaam waaye gis malakul mawti rek day nekk mbugal ci moom te xam ngeen ni malakul mawti bi yàlla rañaanee suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam jibril ànd ak moom mi ngi ko fekk ci asamaanu juróomeel daf ko gis rek daanu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ximmi koo mu ne jibril kii kan la jibril na ko kii mooy qaabidul arwaax kii moom la yàlla affecté jaam yi kuy faatu moom mooy jël sa ruux bi ko yont bi waxee saxaaba yi laaj ku ne ko lan moo la jooyloo mu ne xanaa jëmm la joo xam ni diggante mbaggam ak loosam boo ciy dox fanweeri at du tax nga yegg tey nit ñi mu mënee dugal télévision ci néegam di seetaan ay dëkki-dëkk te ay nit ñoo ko créé noonu la yàlla mën a bind jëmm ju toll noonu yónni ko ci yow mu fekk la sa néeg fekk la fu ne jël sa ruux yéeg ak moom malakul mawti gan la goo xam ni ku nekk dina la gane si bu jëlee ruu nag kooku nga xam ni daa nekkoon ci safaan bu ñëwee ànd ak ñi muy àndal ba malaaka yu ñëw kii ne ko sa lekk jeex na kii ne ko dootoo dox kii ne ko dootoo noyyi moom ni muy tëllee rek dafay doy mbugal moo tax léeg-léeg nga gis sukuraat yu métti yàlla nañ ci yàlla muccal yonent bi waxoon day ñëw ina lil mawti la sakaraat dee dara gënu koo métti dee dara gënu koo tiis dee lu doy waar la moo tax nit boo demee ba toll ci sa digganteeg sa borom yëgatoo ci lu bari bu ñuy waaraate doo ko yëg boo déggee lu baax day mel ni dégguloo ko nga mel ni ko ku de ñu ne fàttalikul de wala demal ci bàmmeeli ziyaar ñi nga xam ni ñoo fa tëdd ndax ku bëgg a waaru de doy na la waar ñu ne kooku nag malaaka yi ni ñu ñëwee ñoom itam xëcciru gi façon bu mettee métti nee nañ misaalu ki nga xam ne moo doon def lu baax bu ñuy xëcciruwam day mel ni boo tànqee ndox di ko sotti toq yi ni muy gaawee kooku sukuraatam noonu lay gaawee ñu ne waaye ki doon def safaan day mel ni leen bu tooy leen bu tooy boo koy xëcc day mét dafay naqaree xëcc ñu ne gi noonu lay mel ci yaram wi malaaka yi di ko xëcc naan ko yow bakkan bi nga xam ni yaa toppoon sa àdduna yow bakkan bi nga xam ni julli gi ñu la santoon sax pour nga taxaw ci problème la yow mi nga xam ni santaane yi danga ko tegoon fële topp seytaane tey ñëwal ci sa sànjuk boroom sa boroom gërëmu la yow sa boroom xarab na la noonu lañuy def di xëcc di xëcc ba yegg ci ndigg mi nag malakul ci na jeef nag ak ni mu mel da koy gëdd ne ko yow bakkan bu yées bi nekkoon ci jëmm ji yi nga xam ne yaakaaroon na ni du dee ki nga xam ne ku mu gis def na ni moo la gën ki nga xam ne mi ngi doon dëgg nit ñi di leen noote yow mi nga xam ne yaakaaroon nga ni yow rek la tey ñëwal ci sa sànju boroom sa borom jéppi na la sa boroom mere na la ñu ne foofu dina ko xëcc xëcc boo xam ne mettit bi kenn mënu la koo nettali yaa nañ ci yàlla mu cël bu jëlee ruu gi nag ba yéeg ak moom kaw asamaan asamaan bu mu yegg rek malaaka yi dar seen bakkan génn waa malakul mawti am nga gan kii mooy kan xet gi sonal nañu mu ne kii mooy diw doomu diw mu nekkoon ci àdduna yaakaar na du fi jóge def àdduna rek muy kër topp àdduna rek ñu daal di koy ñaanal na ko yow de yow ruu bon bii yàlla boo am ngërmaande yàlla yàlla jéppi na la yàlla xarab na la kenn du la ubbil asamaan asamaan bu mu yegg loolu lañ koy wax ba asamaan nu juróom-ñaar ñu ne foofu ruu asamaan bi du ubbeeku ndax yàlla def nii am na ñoo xam ni asamaan du leen ubbeekul mukk lu dul ne gileem dafa jaar ci li nga xam ne mooy bunt puso ñu ne kooku mooy jëmm jooju nga xam ni ruwam dafa ñëw asamaan malaaka yu moolu ko yàlla soxlawu ko ñu ne dañ koy delloowaat ci jëmm jooju nga xam ni moom moo doomu aadama bi yóbbu ko ci fi nga xam ni mooy bàmmeelam mu nekk ak moom foofu dee googu sukuraat boobu étape ci li nga xam ni moom mooy dund gi mujj ci doomu aadama ndax xam ngeen ni doomu aadama dundam yépp ay maraaxil la bi nekk xale bi nekk jeune bi nga ci tolloo gis nga ni ngay tolloo ci lenn tey ni muy ñëwee samedi dimanche lundi sa bisu dee noonu lay teewee te doo ko jéggi bu yegsee rek nga dem ñu bàyyi xel suñu bopp ku nekk nga yor ubbukaay du upp saxaaba yi dafa benn saxaaba boo xam ni bi muy génn àdduna dafa laaj ay doomam ne leen ñëw leen ngeen jege ma doom yi ne ko papa lan ngay yëg mu ne damay yëg dama mel ni picc bu ñu dugal ci pool di ko lakk di ko saaf te deewul li muy yëg loolu laay yëg mu ne dama yëg dafa mel ni dañoo jël asamaan si boole ko suuf si ma nekk seen diggante mu ne xat-xat yooyu laay yëg te saxaaba la woon bi muy sukuraat biñ ko laajee Lol la wax ni mom, lol la doon yek ndax metit bi nga xamni dafa and ak mom non nak ngay def ndaysan sa ruh genn dem nga dess fa yonent bi neena nit ku faatu ruu gi malaaka mi ngi ko téye buñ koy sang mi ngi xol nañ koy naka lañ koy sange motax mak ñi nga gis ci sen stratégie buñ sangé sangee ba paré nako bal ñu ak bo faato malaaka mi ngi yor sa ruh lépp luñ lay defal da koy yëg ba koroog ñu lay suul delloowaat la sa ruux examiner la laaj la foofu sa fu mu jëm nag nga xam ne loolooy sa chance te yow yaa liggéeyoon. boo faatoo malaaka mi ngi yor sa lépp luñ lay defal da koy yëg ba koroog ñu lay suul delloowaat la sa ruux examiner la laaj la foofu sa ruux fu mu jëm nag nga xam ne loolooy sa chance. te yow yaa ko liggéeyoon yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo ko wax ndeysaan yont bi dafa toog ak saxaaba yi mu ne doomu aadama su faatoo ndax xam ngeen sukuraat bu paasee kenn soxlaatu la ñi la gën a bëgg ñooy njëkk a ñëw kër gi lañ lay njëkk a génne lal bi lañ leen njëkk a wàcce sa alal moom njëkk na laa jàmm moom sa alal moom jàmm na la bu yàgg walla ginnaaw ñu yobbu na ci morga ba tëral sang kat yi ñëw sang sang gugale nak yobbu la yonent bi ak sahaba yi sallallahu alayhi wa sallam benn bes benn janaza daal di koy romb mu joy ba sahaba yi joy and ak mom mu ko yow sang bi lan mo la lo mu ne xana bammel fañ ko neure yobbu moma joy lo ndax bàmmeel li ci nekk moom it dafa raglu moo tax doomu aadama li koy xaar dafa bari il faut mu bàyyi xel boppam li lay xaar ak a bari sukuraat gan googu na seef si sa kanam ñu daal di nag rocc sa roox daal lay sang yow yaa daan sang sa bopp am na paat yoo xam ne kenn daaw ko gis ci yow keroog ndeysaan sangkat bi fu nekk loxoom dina fa dugg mënuloo sa bopp dara yonent bi ne bu ñu lay jagat di la yóbbu bu fekkee da nga doon def lu baax da nga naan gaawee leen ma gaawee leen ma yóbbu ma ci sama kër ndax àdduna dafa metti mu ne bu fekkee da nga doon def lu bon danga naan ay man tey fu ma jëm ndax nanga nga gis sa malakul mawti métti na métti goo xam ne yàkkamte woo ñu suul la saxaaba yi na ko ñun de dañuy yóbbu néew yi waaye mosuñu koo dégg mu ne yàlla daf leen yërëm ndax su ngeen ko déggoon da ngeen di dee ànd ak néew noonu la jagat jagatee ndeysaan daa di yóbbu nag suuf si nga xam ni ndeysaan booy tëdd sa lal bu ci benn bépp nekkee danga koy faxas doo bëgg mu laal la bis ñëw mu nekk sa lal nekk sa njeganaay waaye nekk sa mujjuwaay wante yàlla juumul minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ci suuf lañ leen binde kon yow yaay kan bay balballu yaay kan ba yaay kan nit ñëpp danga nga leen war a offensé faale kenn yaay kan yaay kan ba mu yegg ci suuf lañ la bindee soo faatoo fa lañ lay delloo ëllëg ci lañ lay dekkee nga taxaw sa kanamu borom subhanahu wa taala kon lu ko fi jar bu ñu yóbboo suul la ñu gën a doy waar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul suul néew rek ñu suul rek mu wane ginnaaw dem. góor ñi yóbbu neew xam nañ ni bu dee ko jiite ku am diine la bu ñu suulee ba ba sëkk ba pare day taxaw ndax yont bi noonu la daan def ñaanal leen ko ndax nag malaaka yu koy examiner nag egsi nañ ñu ngi koy laaj ñaanal leen ko tasbiit maanaam làmmiñam dëgër ba mën a tontu liñ koy laaj moo tax suul néew rek wan ko ginnaaw noonu danger la da suul ba pare taxaw ab diir ñaanal ko ñi nga àndal ñaanal ko ngeen soog koo woon ginnaaw dem foofu li tax mu metti mooy suuf danga doon dox ci kawam musuloo dégg mu àddu buñ ñëwee nag ba xar ba suul la rek suuf mooy njëkk a wax ak yow ne la ana baytu duudi ana baytul xurbati ana baytu zulmati haza ma aadatuka fa maza aadattani ñu bàyyi ko mu dal tuuti sax bi nga teg tuuti alquran rek mu continuer waat dal tuuti insha allah ne la man maay kër gu wéet yaram bi lu muy duuf duuf ay sax ñoo koy mujje man maay kërug wéet say jëf rek ñoo lay wéttali suuf sax du yam foofu ci wax loolu dina wax ak yow ne la jaa uuka wa dafa nuuka walaw zallu maaka maa nafauka ne indi nañ la suul nañ la te buñ fi desoon ak yow duñ la mënal dara moo tax waaja ne kuy jël sa bopp di ko jox nit te manul buñ la suulee mu ñëw ne malaaka yi li ngeen koy laaj lat mais laaj leen ma koy tontu mu ne jar naa xoolaat bu la tegee ci yoon wu baax nga ànd ceeg moom bu dee safaan nag nga bàyyi ko te topp yoon wu baax suuf dina wax ak yow yooyu kàddu est ce que nit imaginer na suuf di wax mu di ko dégg nit mi ngi imaginer suuf si muy dox suuf sii muy tabax suuf si muy dëkke muy wax mu di ko dégg ci noppam ndeysaan bu àddoo noonu rek moom suuf mun kar ak nakiir nag daal ni jëmm nag daal di yegg si nag mun kar ak nakiir moomu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ku ci nekk munkar ak nakiir la wax ne kenn ku ci nekk bu ñu wàccoon ci àdduna xajuñu fi dinañ bënn sa bàmmeel fekk la fa yëkkati la laaj la yii laaj te di nga tontu moo tax nee nañ xale yi kuy def examen te adme woo bul jooy examen bu rëy baa ngi lay xaar ci biir bàmmeel te par force nga tontu yonte bi nee na sallallahu alayhi wa bu ñuy ñëw nee na munkar ak nakir moomu nee seeni gémmiñ tàkk-tàkk bi ciy génne mooy xotti suuf si ba egg si yàlla na fekkoon nga nekk ci lu baax nee na boo nekkoon ci lu baax bu ñëwee melokaan yu rafet la ñuy indaale yëkkati la nga jug toog delloo nañ la sa ruux yaa ngi koy yëg sa yaram laaj la yii laaj danga koy tontu man rabbu ka waaye yow jëmm ji nekkoon ci kaw suuf nag kuy sa boroom soo gëmoon ni yàlla moom mooy kenn mooy waaxidul ahad mooy ki nga xam ne jurul kenn te kenn juru ko ki amul nawle ki nga xam ni moom rek la ñuy jublu soo ko gëmul woon doon ko sellal doo ko jaam doon ko jaamu doo tontu donte xam nga yàlla waaye boo yëgoon ni yàlla rek mooy yàlla lu dul yàlla yàlla moo la ko war a gënal buñ la koy laaj ngay ngay tontu allahu rabbi benn yàlla rek moo am ñëpp moom la ñuy wéeru ñëpp ci moom la ñuy jublu mooy yàlla ji nga xam ni mooy rey mooy dekkil moo la dundal moo lay wërsëgal sa lépp ci loxoom la nekk mu won la am na beneen riwaaye bu ne dinañ la laaj man na bi ko kuy sa yonent mais am na beneen riwaaye bu wax ne du la laaj kan mooy sa yonent mais dañ lay won photo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la góor gi lan nga doon wax ci moom bu fekkoon danga doon topp sunnaam topp su naam léegi ak a jafe boo ko naree ñu ne la diina ju bees nga fi indi tey ñaata ay nit ñoo bëgg a simmeeku yëg na liñ doon dund ay caaxaan la ñu ne dañuy xeeñtu li yonent bi doon xeeñtu sallallahu alayhi wa sallam façon tur bu nekk utal nañ leen ko dinañ leen xeet seen biiri mbokk dinañ leen utal tur dinañ yàq seen der ndax lan ki gën ñëpp nga ni dama koy rey ñu ne doo ko fi roye te soo faatoo dañ la koy won ne la lan nga doon wax ci moom bu fekkee nag yaa ngi doon dunde sunnaam da ngay tontu ne góor gi kii mooy xaatamul anbiya kii mooy imaamul mursalin ne kii mooy ki nga xam ni ku yàlla yónni moo la gën kuy dox ci suuf moo la gën kii la yàlla yéege fu mu yéegewul kenn xaaba xaw say ne aw àddina fa awxaa ilaa abdihi maa awxaa maa kasabal fu aadu maa moo tax yàlla bët du ko gis waaye dañ koy yëg nga tontu ne kii daal mooy sang bi nga xam ni moo ñu muccal ay waay bu dul woon ak moom xaw ma fu ñu koy waxe ñi nekkoon ci jaahiliya bu ñu leen delloowaatam seen ruux yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne cëpp ci seen biir duñ ko gëme ndax dund jaahiliya dafa metti réer dafa metti waaye booy dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay yëg fierté bi nga xam ne moom ngay àndal ndax moom moo sauvé waa àdduna bu dul woon ak moom nit ñépp dañuy fey ci li nga xam ne mooy géeju lëndëm géeju réer waaye daal di teere fa nga xam ne mooy safara wala iyaazu billah nga tontu ne kii daal mooy ki nga xam ni moom la yàlla tànn yónni ko ma doon nag xentu sunnaam nag nekkoon ci buggoon ko lool nag sallallahu alayhi wa sallam ñu daal la nag maa kitaabu ko waa lan moo nekkoon sa téere alquran bu fekkee daan nga xëy suba ba ngoon du mooyuwoo alquran mii chaque jour yaa ngi ci nekk di ko jàng da ngay tontu facilement waaye boo ci amoon conteneur te musoo koo ubbi liir du la jëriñ dara léeg-léeg nga dugg kër goo xam ne alquran ci bibliothèque ba lañ koy teg alquran du pour bibliothèque alquran da nga koy jël di ci jàng ndax mooy journal bi gën ci journal yi moo la jox information démb jox la information tey jox la information ëllëg am na koo xam ne journal bu génn chaque jour dina ko jënd dina ko liir journal bu mag bi nag jege la lool léeg nga dégg koy wax sax ne man jànguma alquran ruslu na boo faatoo dinañ la laaj lan moo nekkoon sa téere bu doon yaa ngi koy jàng di ko nafar di ko jëfee comme ni saxaaba yi niñ ko doon defee daaw ñu romb benn aaya di ko mokkal lu dul ne dañ koo jëfee buñ musaana jàng bismillahi rahmaani rahim dañuy taxaw waaye yàlla ji yërmaate mooy kan yàlla ji nga xam ne mooy xéewal mbooleem mbindeef fii ci àdduna waaye dencal ëllëg ay xéewalam ñi ko doon jaamu jëm koo gëstu xam ko soo ko dem ci alhamdulilahi rabbil alamin mais tey ñun dañuy jàng di mokkal mais jëfe bi dafay des gis koo xam ne dina toog ay at du ubbi kaamil liir ak a dangereux buñ la laajee foofu lan mooy sa téere bu doon nag yaa nga ca di ko jàng di ko jëfe surtout di ko jàng di ko jëfe surtout da ngay tontu ne alquran mooy sama téere ñu laaj na nag maa diinu waa lan moo nekkoon sa diine nag ah yàlla na fekk li yonent bi waxoon ne mooy am aaxiru zaman dalu la de nee na mujjantalu jamono laa yabqaa min al islaami illa rasmu nee na turam rek islam daal tur rek man daal jullit laa kese nga ci am xamoo nooy defare sa julli bu yàqoo xamoo say farata xamoo say sunna ba kuy jaamu yàlla sa sax danga koy déranger wala daf lay déranger tey am na ay jullit ñoo xam ni ñoom sax lañuy jël def leen pion di ko xeexe ay jullit te yëguñu ko ndax ñàkk xam seen diina jooju lan lay undu ci ñoom moo tax Fathiya Kane bindkat bu mag boobu bind benn téere bu am solo muy maza yaani intimaa ilil islaam ku nekk war na koo liir waa man nag ginnaaw bi ma nekkee jullit waa man sama nekk jullit lan lay firi mooy sellal sa jëflanteeg nit ñi yàlla kenn waxaalewu ko sa ngénte sax nga tudde ko yàlla sa tée sa ceet nga tudde ko yàlla yow sa bopp nga jël sa bopp jébbal yàlla mooy tënku ci li la yàlla sant bàyyi lim la tere tànk amul buñ la ko laajee doo tontu jullit boo xam ne ci làmmiñ kese la yam man jullit laa kese tout dafa yomb trop te tey ci lañ toll tey booy dund diine sax dañ lay teg dof dañ lay teg koo xam ni kii daal ndeysaan dañ lay am na ñoo xam dañ lay yërëm fekk na ren ya leen di faj mu ci sa loxo ndeysaan lu doy waar la yooyu laaj dinañ la ko laaj boo doon sellal da ngay tontu facilement. waaye boo seetlalul buñ la nee man rabbu ka da tiit da nga naan hë hë hë doo mën a tontu da dër ci saase luñ la laaj doo tontu malaaka yi ne la ndeysaan laa darayta wala talayta jéemoo woon a jàng jéemoo woon a xam def ni ndaw gi du jeex def ni sa raw sa ndaw gi danga koy jeexal ci àdduna fekk ci bàmmeel nga koy rappale ndeysaan benn jigéen bu tudd mu ba day génn àdduna di jooy mi gën a àdduna mi ngi am 18 ans ñëpp xamoon ko ci jaamu yàlla ak sellal ñu ne ko Muniba lan ngay jooy ndax danga ragal dee mun a jooyu ma ngir dee gi may de mais damay jooy sama jëmm ni mu naree ràpp ci bàmmeel sama jeunesse te màndiwul ci jaamu borom bi subhanahu wa loolu laay jooy buñ la laajee laaj yooyu tontu woo yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na malaaka yooyu ñi ngi yore benn mbolde boo xam ne buñ ko wàccee woon ci kaw suuf ñëpp ñëpp jàpp du yëkkatiku attanuñ ko ñu ne moom lañ lay dóor nga dugg ci suuf juróom-ñaari mètre génnaat suuf daal lay nacc ba soo mi nga ñëkkoon a nàmp dafay génn yal nañ ci yàlla mu muccal moo tax ndeysaan saxaaba yi nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu abu ayub moom moo ko soloo nee dañu ànd ak yont bi sallallahu alayhi wa sallam romb bàmmeel nee na yonent bi ndeysaan jékki-jékki rek yëngal boppam ñu laaj ko ne ko sang bi lan la mu ne benn yahud lañuy ñuy mbugal ci bàmmeelam mu yuuxu loolu laa dégg ñu laaj ko ne ko sang bi ñun ndey dégguñu ko mu ne yërmande yàlla ci yéen su man su neexoon ma ñaan yàlla ngeen koy dégg waaye du leen jikk looloo tax yéen du ngeen ko dégg yont bi nee na nit bu deewee te daawul def lu baax bàmmeelam boobu mooy nekk safaraam yàlla nañ ci yàlla muccal ndax bàmmeel benn mu nekk teen ci teenu safara yi wala benn mu nekk jardin ci jardin aljana yi moo tax ndeysaan Aïcha bi ko yonent bi waxee mu ne ko yow sang bi nga ni ñun dañuy natt ci suñu ay bàmmeel man jigéen laa ju tuuti ju ndaw situation boobu naka laa koy dunde mu ne ko jullit bu doon sellal loolu du ko dal ndax yusabitu llahu allazina amanu bil qawli sabiti fi lxayaati dunia wa yàlla day dëgëral ki nga xam ne mu ngi ko doon sellal di ko jaamu ba malaaka yi xëy ba bu ñu indi buñ ko laajee mu tontu mu dëgëral làmmiñam ba nga xam ni liñ koy laaj dina ko tontu mu ne kon sa néew doole gi ak sa tuuti gi jaamul yàlla rek boo jaamoo yàlla li ñuy wax mën na laa bañ a dal maanaam jaamukatu yàlla du yëg mbugal bi nga xam ni yonent bi jàngal nañu ko ci bàmmeel yonent bi salallahu alayhi wa sallam ah, isa nee na benn yahudiya dafa duggoon ci moom ñu wax ba wax mbugalu bàmmeel ndeysaan nee na ñu jooy ne yonent bi ne muslu leen ci bàmmeel mbugalu bàmmeel moo tax na ci ay ñaanam saa yu xëyee dina ñaan ci suba gi ak ci ngoon gi yal nañu yàlla musal ci mbugalu bàmmeel bàmmeel dafa tàng suuf dafa tàng te yow lépp loo fa def yow yaa ko fa yóbbu loo fa deful doo ko fa fekk nag moo tax dañuy wax càngaay lu bees pax mu bees néew bu bees lu ñuul loo fa yóbbu yaa ko fa yóbbu lu ñuul loo fa fekk rek yaa ko fa yóbbu am na nag ay xeetu mbugal ci bàmmeel xëy na temps bi day dem am na ay ustaas yu fi teew yoo xam ni ñu ngi kontaan suñu ustaas Assane Seck moo fi teew nii léegi du ñàkk ñu mun cee dolli nee naa leen man thème bii ma ko traité nit ki noonu lay nekkee ci bàmmeelam bu doon day def safaan ñaari malaaka yooyu bala ñoo dem ubbil ko benn porte mu xool ci aljanna ne ko xoolal aljanna ku nekk am na fa place yàlla baax ku ne am na fa terrain benn nga tabax ko rek wala nga bañ koo tabax li nga koy tabaxee nag mooy sa yiw yàlla wecceel na la ko yóbbul la ko safara tey fii mooy sa muccuwaay fii mooy sa mujjuwaay moo tax waykat ba nee na bëri na ay bàmmeel yu ñuy ziyaara fekk seen bopp seen borom nga ca haawiya bëri na ay bàmmeel yu ràpp kenn xoolatu leen fekk ña nga ca aljanna yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu moo tax yont bi doon na ñaan bay ñaan naan yàlla yàlla nag ñu dimbali ci sa yërmande bu ñu nit ñi fàttee bu ñu sax yi lekkee bu suuf ràppalee suñu ay jëmm moo tax way dawlu yi kenn waru leen a fàtte ñoom gis nañ dëgg ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam annaasu niyaamun isa isa maatus tay xasu ne nit ñëpp dañuy nelaw ku faatu ba ñu suul la ba nga yëg ni dëgg dëgg dee dikkal na ma nag ci ngay xam lan mooy dëgg yàlla bu mu trop tard xam dëgg ci biir bàmmeel yàlla bu mu trop nga njëkk xam fii Nek ci ba ak yalla dina jël jang nak du wess tol nañ ci jamono jo xamni tay lay amatul janguma awma ma jangal amatul de radio yaangi jangale oustaz bo dendal boko ko jangal ma naka lañuy ñuy sa sokku mënu mu waxal lako ko kon jang sa diine ba xam ko xam naka ngay ak sa borom lu am solo la baña top aduna dafa mëna mbassé ak mëna naxé ñaata nit ñoo génn seen kër te wuñu ñaata nit ñoo koy génn seen kër tàggu seen njaboot dem liggéeyi te fekk na yére ba ñu sol sangkat bi moom moo koy simmi moo tax booy sol yére da xalaat est-ce que yaa koy simmi wala ñu lay sang ñoo koy simmi nit ki noonu lay nekkee bu malaaka yi demee am jëmm ju doy ju ko dikkal bu xasaw ñuul kukk mu jaaxle waaye yow yow yaay kan man maay sa jëf yu bon yi nga doon jëf tey man maa lay wéttali may julli gi nga daan faat maay koor gi nga nanguwul woon maay sa dëkkandoo bi nga doon lor tey maay sa jëkkër bi nga doon dënge tey maay maay maay ba mu yegg moo lay wéttali yaa nañ ci yàlla mu muccal boo doon def lu baax nag moom lu rafet mooy ñëw loo xam ni xet ga muy am mosoo koo xentu ndax neex ñëw wax wax bu tey yow yaay kan man damaay julli fajar mu seddu guy ñepp di nelaw nga juk bayyi mbàjj mi bayyi soxna si bayyi lepp juk dem jappi fajar mu seddu guy nga bayyi borom kër gi bayyi lepp dem jappi julli xew wi neex lool nga lool julli jot nga bayyi ko fa dem julli ji xaaliss bi nga liggey ko mu lew la lool mom ko waye am lo xamni ne sañoo ko nyufi ndax bu fa yegge da ngay genn am lo ci joxe nga joxe won ko tay may jëf yu bax yi may kaddu yiw yi rafetal bi tay man may ñu fi di la wétali moom itam ñu wan ko safara ndeysaan dañ koy da xool rek mu jaag ci benn laxza daal koy ubbil nag benn fenêtre ci fenêtru àjjana yi ne ko nag fii nag tey moom mooy sa place yonent bi nee na dañuy yaatal bàmmeel bi mu yaatu ñu leeral ko ba nga xam ne day mel ni weer wu leer ci guddi nga xam ne bu bus a wa doon di nga ko mën a for nee na foofu ngay nekk nee na sax dinañ la laaj ne la est-ce que ngaa dellu àdduna nga ni déedéet àdduna këru coono la adduniyaa daarul humum wal ahzan adduna kër la goo xam ni ay coono kese moom moo fa nekk ak ay njàqare fii laay des waaye ki doon def lu bon moom danaan yàlla bàyyi ma ma dellu la ali amalu saalihan fekk wees na yàlla may ma ma dellu wees na ngeen ku dee dellu si amul te du mës a am amul te du mës a am sa bàmmeel boobu fa ngay tëdd di nelaw ndeysaan sam papa ku daan yé pour ñu julli daf ñu daan wax jug ku dé di nga nelaw ba doyal wa yeen nelaw ngay noyal nelaw bo doon def lu bax da ngay nelaw comme nelaw wi sét ñu la teugal nelaw dalal nelawal nelaw wi sét waye bo doon def safan nelaw dang koy dégg do ko gis ndax yaang ci ay fitna yoonte bi tok nak sahaba yi jàng aya bi waman arada an zikri fa inna lahu maishatan danka sahaba yi na tek mune wa du ngeen ma laaj mal mal maishatu dank mu ne képp koo xam ne dangaa du mooyu sama njub gi yàlla moo ko wax dund gu xat ngay dund ne saxaaba yi du ngeen ma laaj dan may dund gu xat ñu ne ko laaj ko mu ne loolu daal moom mooy xayaatul kaafiri fi xabrihi mooy dund bi nga xam ni ki weddi woon yàlla ki nga xam ni donte dafa tuddewoo woon jullit te tur bi rek la ci am dund ga muy dund ci biir suuf loolu mooy maïchatu dank mooy dund xat bu xat dund bu métti donte dañuy ñëw di la zayaa di la ziyaara duñ la jëriñ dara donte dañuy ñëw di la ziyaara duñ la jëriñ dara donte dañuy ñëw di la ziyaara duñ la jëriñ dara sa jëf rek moom moo la fay fekk bàmmee la ngi noonu moom tam ku nekk dina ci jaar ki jël lekk mu lab mu ngi ci bàmmeel xayatul barzaqiya amul ku ko dul dund dund boobu marxala boobu ku nekk di nga ci yegg lakkal ba xam foo mën a jaar dund googu di nga ci jaar munta ñàkk kon kooku nag foofu lay tëdd ndeysaan foofu lay nekk yàlla nag mu soppa nag muy rey pay benn di rey par par benn léeg mu reyandoo lu baree bari mu dem a dem a dem nag ndeysaan ba àdduna du des lu dul nag mbonte gën a not mbonte gën a bëri defe naa ñu ngi ci yegg de tey lu amul woon yépp tey am na tey sunu mag ñi fi jiitu bu ñu yeewu woon xool sunu senegal dañuy jaaxle dañuy laaj est-ce que ñun Sénégal lañ nekk tey jël nañ yeneen i jëfin jël yeneen i culture tey jël yeneen i diine fàtte suñu diine ji nga xam ne moom moo ñu sagal moo ñu suturaal tey jël nañ yeneen façon melokaan surtout jigéen ñi ngeen baal ma surtout jigéen ñi yonte bi nee na sallallahu alayhi wa sallam am na ay nit ñoo xam ne sama xeet lañu bokk gisaguma leen duñ dugg aljana duñ ko sax jege am na ci ay góor ñoo xam ne seen métier mooy di dóor nit ñi tey ñaata ay jullit lañuy rey te waxuñu lu dul aman billah seen bakkar moy gëm yalla ñu leen di ray mu ne amna ci nak ay jigen la wax jigen jigen ño xamni ni jeng ba pare di jengalaté xéssal ba wéx sollu doy war romb xala bu goor won ko ginaaw dox mu tuddu sa awra wala mu wax am lu la wax lu déplacer jengo ba pare jengal ko ma mu milat yonti bi moko wax sallallahu alayhi wa ñen sama xel lañ bokku de mune nak li ci doy war moy ruusahunna ka asnamatil buqtil maa'ila mune sen bop ya nak ñi ci def lu melni ni jëganu lele nga seetaan coiffure bo bo xamne da nga naan ndaysan yonent bi laa yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuuxaa waxul dara ci banexu bakanam lu wax yàlla moko ko wax lo coiffure bo xamne dang koy xol mu melni ay gën ay cour ay negu ñax li yonent bi waxon ñëwul kon lu gëna kawe li nga xamne mom moy mooy jëganu giléem sax dañ koy def ci bop yi léegi nee na jigéen ñooñu dey ak góor ñooñu nga xam ni léeg-léeg ñu def la piyon di la xeexa sa diine te yëguloo ko léeg nga yëg ko sax ndax alal jang cay am moo tax doo ñu may wax nit ñi dëgg nee na ñooñu nit ëllëg yowmal xiyaam xetu àjjana waxuma la dugg àjjana de mais xet gi sax du leen xeeñ mbokku jigéen ñi àdduna neex na waaye day jeex de tey ku fi teew rek am nga koo xamoon mu jóge fi tey ku fi ñëw rek am na koo gisoon min ko lool gisatoo ko lan moo ko yóbbu sawar lan moo la fi bàyyi tayal déedéet daa war a nekk waar ci yow nga yëg ne lu dul yàlla yàllaa ko gën nag lu dul diine sa diine moo la ko war a gënal nga tourné ci sa borom jaamu ko bàyyi xeesal bàyyi mèche bàyyi bopp neen bàyyi yu ni mel ndax daf lay tardeel fa doy waar àdduna neex na waaye day jeex neexul sax ndax comme yàlla nee na lax xad xalaqnal insaana fii kabar tonton Cheikh Mbacke Ndiaye wax ci lu am solo boo baaxee sonn boo bonee sonn booy liggéey sonn boo amee sonn boo ñàkkee sonn loo def sonn ndax dañ la koo mooñaale laqad xalaqnal insaana fii kabat coono rek waaw boo faatoo te noppalu woo foo koy waxe boo demee ba ñu suul la te nelawoo fa nelawu séet fan nga koy waxe ñu delloo suñu xel suñu boroom caaxaan bari na caaxaan bari na tey lépp lu ñaawoon ñu ngi ko taaral bañ def ni moom moo rafet waaye nag borom bi subhanahu wa taala day ay waxam du dellu ginnaaw de tey dangay ngay jaaxle di xool ay jullit ñu toog ci barab di seetaan ay nit yoo xam ne seen alal ñoo koy lekk doo julli nekk kilifa kenn xalaatul sax waxtu yàlla wi dafa métti yooyu boo koy xool sa day jeex boo koy wax ñu ne diw intégriste la dangeen ngeen a teengal da ngeen a ëppal yàlla yërmandeem dafa yaatu loolu lañ lay wax de lakk ngeen ñëpp nee na ñun waaraatekat yi lakk nañ ñëpp mais ñun moomuñu safara safara yàlla moo ko moom man de bu ma ko moom man kenn du fa dugg te xam naa asal maxtaar ñi fi toog ñëpp ku ci nekk safara bu nekkoon sa loxo kenn du ci dugg ndax dafa métti ndax bi yàlla bindee safara daa yónni jibril ne ko demal yërndu safara lu fa xew jibril dem ñëw ne yàlla ah safara doy na waar la fa nekk ku ko dégg du xemmem pour dugg fa mu ne ko bul fayam demal yëndul ma na mu yëndu àjjana ñëw ne ko ah yàlla ay waay la fa nekk waaye ku ko dégg bugg cee dugg mu ne ko taxawal nag ma wax la gis nga safara soosu dama koo ñege ay bànneex ay bànneex rek laa ko ñege topp sa àdduna rek ba yaakaar ni doo fi jóge muy neex ndax def lu bon léeg dafa mel ni bànneex daf cay nekk ndax seytaane moo la koy taaral mu na ko waaye na nag dama ko ñage ak ay mettit moo tax bala nga koo am da ngay sonn waaye yàlla nañu ko yàlla may nit ki nag bu yàlla defee li ko soog ñu rey par benn benn suul par benn benn comme ni ñu leen ko waxee day dem ba mbonte rek moo fiy des yàlla dina yónni nag yonent yàlla Isa alayhi salaam nee nañ nag fa makasa arbaina arbaina boobu kenn xamul ñeen fukki fan kenn xamul ñeen fukki at di waar képp koo xam ni danga nekkoon ci dëng te di waar képp koo xam ne danga nekkoon ci caaxaan waaye li doy waar mooy masiixu dajjaal mi nga xam ni moom itam il faut mu def liggéeyam yàlla la soob ñu ne bu àdduna demee noonu nag caaxaan yi bari waaye saa demee ndeysaan ñu ne képp koo xam ne da doon dund laa ilaha illallah lu mu néew néew benn ngelaw lu sedd moo lay ñëw rey la nga faatu dootoo fi des caaxaan gën a bari ñu ne yàlla bis buy wal bufta bi nee nañu jour boobu day fekk lu mel ni musique la nit ñi di dégg ñu ne seytaane day mel ni day tëgg ay musique ay waay ñi animé ay misik waay ay waay ñi nga xam ni CD bu génn ci misik ñu déglu ko toog ay weer ay at doo déglu alxuraan ku génne clip ku génne way nga jënd ko teg déglu ndey ndeysaan bis a ngi ñëw ku ko fekke nag doo texe musique boobu la dégg mu neex ci moom kenn dootul téye sa bopp ñëpp di fecc seytaane naan doy na ñu ne déedéet loo ñu digal rek ñu def yow rek la topp fi mu nekk nii ñu nekk ci loolu fekk musique boobu ay mbugal la ñu nekk ci loolu nekk ci yàlla du mer sànja la am ah ñii nag ñi ngi soog a la malaaka yi doon wax reño bi yalla njëkk def ak malaaka yi ndax da ngay wacce ku ko taqal ku ko tilimal ñi nak ñoo takal ñi ñoo tilimal kon nak tay jot na nak ma taxañ nak asaman sek suuf si abdullah ibn mas'ud neena dafa tok ak yonnti bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuuti rek mu gis yonnti bi ñak ba toy neena ba si rek mu joy joy yu metti mu lat ko sang bi loy joy منك جبريل مو نيما كلا اذا دكت الارض دكان دكان وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له ذكرى منك آه جبريل لما يندل دينا وار نينا بس بو يالا جيري سوف سي موكال كو جيل خيري توجتالين سفر دي الاوتك دي غور دي اوتو نيت nee na ah bis boobu doomu aadama dina jaaxle mu ne lii moom a jooyloo sallallahu alayhi wa sallam mës naa wax tam saxaaba yi ne leen fekk muy xiif ba du am lu mu lekk muy takk jël ay xeer di ko takk ci biiram ñu ne ko yow la yàlla jéggal say bàkkaar lu ci jiitu ak lu ci mujj yow la yàlla jaare fu mu jaarewul kenn waa sang bi lan moo lay jaaxal ba doo laaj sa borom mu jox la loo mën a lekk loo mën a jëfandikoo mu ne naka laay bànneexoo ci kaw suuf te malaaka bi yàlla jox bufta bi na ko ëf ko mi ngi sëgg jël catu gémmiñam def ko ci catu bufta bi di xaar yàlla na ko ëfal ba mu ëf ko kon man naka laay bànneexoo yonte bi moo ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam ñun nag tey waxuma la sax bànneexu waaye lu ko raw la ñuy def dañuy fàtte léeg-léeg ndeysaan waaye boo fàttee sax ba mu yàgg nga fàttaliku sax am na chance waaye kii fàtte te du ku nekk rek ci ay caaxaan kooku moo méttile ku mel noonu yàlla na ko yàlla gindi lu mën a am rek mooy bisa ngi ñëw nag boo xam ni moom am na nag ñu ko gëmul am na ñoo xam dañuy laaj est-ce que yowmal xiyaama dina am ma ah, akay akay am est-ce que nit ñëpp dinañ dee yàlla rek la leen akay ah akay ah am borom bi subhanahu wa moo ñu ko jàngal nee na iza nufixa fi suuri nafxatun waaxida wa xumilatul jibaalu wal ardi fa dukkataa dakkata waaxida fa yowma izin waqaatil waaqia nee na malaaka moomu mënaan ëffal bis bu ko ëffee ñu mokkal suuf tojo asamaan màbb ko rajaxe neena bis bobu li xew ci lay xew neena bis bobu li am ci lay am nit ñépp dinañ dé waye ñépp dinañ dekki waye ñépp dinañ taxaw ci kanam borom bi subhanahu wa taala ndaysan mo tax buur yi dañuy tëb lu bari ndax oustaz yi fi nek buur yi ñi am pouvoir ñi am alal leg leg dañuy fàtte jël sa loxo dóor sa dënn ne man la juum nga de kenn ki mooy ki nga xam ni mooy rey ñépp yemoo ci gàngu naayam daldi nag li ma nin mulkul yow tey ñi doon woote nguur tey anañu kenn du tontu kenn du wax kon benn buur rek moo am muy yàlla fii yàlla kese moo fi nekk ku am rek moo la jox ku ñàkkit moo la xañ yàlla dina rey nit ñépp ba ñu dee mu dekkil ñépp taxaw nit ñëpp taxaw nit taxaw dina taxaw malaaka taxaw mu yemoo ci gàngu naayam naan tey kan mooy buur ku sañ a loxo kenn du yëkkati loxo li manil mulkul yow ana ñu doon fëgg seen dënn naan ñun la ñoom kay la ñuy wax mooy halaka anni sultaaniya ma agna anni maaliya halaka anni sultaaniya loolu la ñuy wax ah bu doon da nga am alal ñu la dar duñ la wax deug ndax tay ku am alal am ñu la dar kenn du la wax deug nga yaata yu mbay def ne yaw la ya nax sa bop alal joju day mujjé nek mbugal ñen la ndax alal tere terewu wala dee kenn ana xaaruun mais xam ne buntu magasin ay tiabi or la dañ ko don japp anam mu min ci bir suuf di jalaño ba tay mbugal lu koy mbugal gi ko yalla def moo tax kon tay kuy feug sa deun fàttalikul ne fii benn buur kese moom moo fi nekk bu ñëpp taxawee nag ci talxiis bërëb boobu am na la fay xew yonent bi dafa xool doomam Fatima ba mu yàgg ne ko yaa Fatima inqizi nafsaki min annaar ne ko yow Fatimatu Zahra jëlal sa bopp ci safara Fatima jaaxle papaam mooy yonent bi yàlla jégal ko ay bàkkaaram muy dund mu nekk baayam nekk gën gi mbindéef gën gi mbindéef tourné na doomam mu tëral sa bopp ci safara mu jaaxle mu ne ko li tax ma wax la ko mooy ëllëg yowmal xiyaama ñetti place man sa papa mënuluma la fa dara yonent bi mooy wax de sallallahu alayhi wa sallam neena yowmal qiyam domam joju di fatima ëllëg yowmal qiyam ñetti baraba a ngi nii mënalu ko dara mu ko buñ lay jox sa téré nga war ko jëlee nday jor wala càmmañ man mun ma fa mun ma ci dara dé bo waree jégg sirat munu ma ci dara dé buñ lay peesee sey jëf munu ma ci dara tay kan moy taxaw asiré la àjjana ma lay duggal àjjana nga diko ko gëm ba doon nga omatu jëm ci sa borom ya perte yaa perte xam ngeen ni ñetti barab yooyu moo gën a doy waar ëllëg yowmal qiyaama ginnaaw taxawaay bu yàgg boobu nga xam ni nit ñi dina ñaq sonn ku nekk ci sa jëf kem nu mu toll noonu ngay ñaqe ñoo da nga gis koo xam ne day ñaq ba lab ci biir ñaq bi bopp bi dootoo ko seet mi ngi fay ci biir ñaqam ndax tàngoor gis koo xam ne ñaq bi day ñëw ba ngalaat ko gis koo xam ne egsi na ci ay bëtam koo xam ne ci dënnam koo xam ne ci ay tànkam noonu ndax taxawaay bu yàgg pour wan leen ne yowmal xiyaam lu fay am lu doy waar la taxawaay boobu nit ñi dinañ ci coono sonn sonn boo coono boo xam ni dañuy mujjee ut di ut ay ndimbal nañ leen dem seeti yonent yi yàlla tànnoon bokk ndax ñu dimbali ñu yonent bu ñëw am nga lay boo teg seen kanam ndax foofu yàlla moo ko moom sunu yonent nag sallallahu alayhi wa bu ñu egsee ci moom mooy jug rek bëgg a kàbbar nag bëgg a julli ñu ko déedéet nak salto ta tay nak mom waroo julli ndax wala saw fa ko rabbuka ba tay lañ lay jox nak ba nga kontaan ñaanal rek ñu may la waye ci biir ñaan bobu ñu may la fay laaj dina ñaan dinañ ko may dina ramu dina dugal ay nit aljana mais ñan lay ramu moy ñi nekkon ci sunna mak ñooñu lay ramu de xam nga ina atay nakal kawsa keroog bi mu wàccee mu ne waaye attention am na ñoo xam ne dinañ ñëw bëgg a naan ci dégg bi ay malaaka taxaw di leen dàq nee na man sang bi ma taxaw naan waa malaaka yi ñii ngeen di dàq sama xel lañ bokk mu ne ko ñii xayeru wa baddalu ñii day ay muhammad lañu tudd ay fatima lañu tudd ay zainab waaye ba nga fa jógee soppi nañu diine ji changé ko ku nekk def ci lu la neex bu ko defee moom tam mu ne ah sama diine ku ko changé man aw maag yow benn affaire kon kooku du la ram foofu donte nag dina duggal ñu bare bare ndax ñi dugg aljana ci xeetam ñun ñooy njëkk dugg aljana ñun xéet yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan nañ ci bokk li am solo ba am solo moy neena len leen bi mun mako traité oustaz mi ngi ni ñu wax safara nga xamni non lay démé wax aljana la nga xamni mo fay xew waye lott naa ci wax ko yàlla xamna ko su fekke di ngeen ko mën yegg ni ngeen dimbali ma ngeen yegg li mako lott naa surtout ci wax safara na nga xam ne noonu lañ ko préparé mënuma koo wax maa ngi jéggalu li ma fi jot wax yépp lu ci jub rek jàpp leen ni yàlla la li ci dëng ci man ñii doon ko jottali la yàlla amul dara lu dëng yàlla nañu yàlla may imaan ñu koy yëg teg ñu ci yoon bi ñu nekk ci ba korog ñu fay jóge yàlla ñu dàqal seytaane tënkal ko suñuy mbokk ba buñ buggee baax ñu jàppale ñu buñ buggee bon ñu téye ñu ne ñu du ngeen fi bone ndax tey bëri na ku loru koo xam ne li ko lor ay nit ñi la topp duñ la wax dëgg say mbokk di la minimiser nga dem ba seytaane këf la naa ngi nii safaraa ngi nii ustaas dinañ leen ko leeral man naa ngi jéggalu aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum salaamu aleykum wa rahmatullah